salut à tous j'espère que vous êtes bien réveillés ah yéen ñi si plateau bi Seynabou Khadija Emelka ñeneen yëpp maa ngi leen di ziar bu baax gis ngeen ko ah dañuy terminer en beauté la semaine mooy def ay étirement comme je vous le à chaque fois. ayez l'habitude ngeen di bàyyi seen muscle yi di étirer même sax boo leen def sport des fois seen yaram bi day façon ngeen étirer ko bu baax a baax suivez-nous suivez-moi avec le coach Matar on y va let's go on va lâcher les muscles. body bi les muscles relâcher les muscles à chaque fois boo leen ko chargé da habitude bàyyi ko moom tamit moo reposé wu boo leen koy def da cette fois-ci je vais pas laisser le coach le soin de parler parce que maintenant je commence à maîtriser c'est secret ah. kon kay bàyyi mu baax leen rek nga wax leen étirement lan lay jëriñ waaw. waaw <laughs> baax leen wax matin quand vous vous réveillez des fois bañ et l'habitude ngeen relâché muscles bu baax a baax da ciy baax étirement lu simple la da leen di dimbale bu baax a baax. salle bi fi ñëw gis que salle bi xaw a nice fii fan la. waaw fii mooy Grand Yoff Image yaa sant Thiandoum. Mhm. benn salle bu bees la bu ne pour ñu dëkk fii xam naa xamaguñ ko nag quoi mais mun ngeen ñëw ngay entraîner am am coach Fatima le le duo de choc fi quoi. Ah, waaw ñu leen di béggee gerte. imagine imagine